di nuyu mbokk yi ñuy seetaan ci euh, facebook bi euh, di nuyu euh, ñëpp daal mm-hmm. rawatina nag waa département de Mbacké rawatina waa Touba di ñaan yàlla liñ fi waxtaane nekk waxtaan wu am njariñ ci askan wi di ñaanal itam xalifa général de Mourid Serigne Mountakha Mbacké yàlla yàggal ko fi loor wér ak waa kër Cheikh Ahmadou Bamba ak talibé Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf sëñ fallu Babacar suñ chroniqueur également mu ngi fi Babacar ça va nga nuyoo. Euh, ñu lay nuyu Jo. première émission ci at mi. waaw di nuyu auditeurs yi si ànd bu rafet bi di nuyu également invité yi ñu jàppale tamit di ñëw ñuy def émission bi sereinement si anam bu ci ayib di ñaan 2021 ñu dugg si jàmm génn si jàmm. amin jërëjëf ñuy xaar également Marème Diop suñu beneen chroniqueuse euh, nek ci radio Futur Média tambalé émission bi ak euh, point du jour bu ministère de la santé japp ci li nga xam moy coronavirus ci biir réew mi euh, ah corona bi nag mo ngi avancer bu baax a baax daanaka law wi chaque jour cas yi di gëna yokku 328 lañ ko ren ci tay ci biir réew mi yëpp ñetti téeméer ak ñaar fuk ak juroom ñett ño xamné am nañ doomu jangoro bi di coronavirus 120 cas contact ak deux cent huit cas communautaire maanaam jëlee nañ ko foo xam ne kenn xamu ko loolu nag suñu diwaan bii di diwaan bu Touba am nañ ci tey fukki cas ak juróom di ay cas communautaire yoo xam ne nemmeeku nañ ko fàllu euh, situation bi nu mel ban commentaire nga ci andi ak tamit mesures yi nga xam ne kilifa yi jël nañ ko par rapport ak mbas moomu récemment ak couvre-feu état d'urgence ci Thiès ak Dakar yow ban xalaat nga ci am. waaw di delluwaat rek di ñaanal ñëpp jàmm ci at mu bees mi euh, di ñaan yàlla bu naree mel ne deux mille vingt yàlla na mel ne deux mille dix huit euh, di di di santaat bu baax a baax waaw mbas mi comme ni ko ñëpp di di di di di di di déggee rek laa koy déggee comme ni ko ñëpp jàppee itam laa koy jàppee di ñaan ya di ñaan itam euh, ñu moytu bu baax. ndax dana màtte ak du màtte li olof di wax bu ko jox sa loxo moom lay digal euh man nak wax deug yalla décision bi nga xamantene autorité yi ngi jël nañ ko euh, damay japp ne dañu jël euh, dañu day demi mesure parce que euh, aw askan ci bopom askan wu ci nek dafa am manam manam seen réalité mm-hmm. seen réalité nak da nga leen ci fekk parce que xale boo xam maanaam dama koy joxe exemple rek ci xale boo xamante ne day doog a dal jàng ak xale bi nga xamante ne dafa jàng ba àgg benn niveau bi boo leen di jox leçon duñ bokk kon euh, fet raison bu ci nekk walla département bu ci nekk dafa am façon sensibilisation bu ñu leen di mm-hmm. bu ñu leen di sensibiliser loolu dafay dafay dafay dafay dafay am solo mm-hmm. ci askan mm-hmm. wi dégg beneen bi ci des mooy lu mel ne couvre-feu bi ñu def couvre-feu bi Euh, du ma ne baaxut parce que ñoom ñoo am information yi nga xamante ni il faut tax ñu def ko waaye kenn ku ci nekk nag am nga ci sa xalaat. man mm-hmm. su ma su ma sañoon nii ñu koy doxalee wax dëgg yàlla euh, danañ seet beneen méthode boo xamante ne moom lañ koy doxalee parce que dafa am première vague bu fi jaaroon ñu ne économie bi dafa wàcc façon wàcc boo xamante ne euh, réew mi dafay dafa nar a suux ñu ne wàññeeku na ñu ne dañuy def relance économie. ba yàlla dogal bi ñu defee relance économie bi itam ñu teg ci maanaam un mois ñu déclenché waat ne deuxième vague am na kon deuxième vague bu amee am na beneen ginnaaw dañu defoon lële mu indi ay jafe-jafe dañu war a xool beneen méthode man nag méthode bi ma jàpp ne man moom baax na euh, ñoom it biñ teg mën nañ ne baax na mais man bi ma jàpp ne baax na tey lu mel ne euh, force de l'ordre yi ñuy génne ay vingt et une ba cinq heures du matin virus bi bu fekkee nit moo ko yóbbu nit ñi moom bëccëg la ñuy ëpp ñu mën a organiser marché yi lieux yi nga xamante ni nit ñi dañ fay dajaloo force de l'ordre yi ne fi di di di di artu nit ñi di leen organiser marché yi ñu fexe ba marché yi ñu décentraliser ko maanaam tey bu foo boo dikkee fu mel ne tubaa am na marché yoo xam ne parce que dañ ko tëj. Mhm. ay nit nekku fa. ñu fexe ba lu mel ne marché Ocass nit ñi nga xamante ne ña ngi fay dajaloo ah bu doonte dañuy jël marché lujum ba ñu toxal ko ci benen marché bo xamante ay nit marché bobu tejj na nit ñi ñi dugg marché di dem di jëndi ay lujum di fa dem ñi ambulant ñu fexé ba organiser leen fenen fo xamanteni ci si itam ñom fa lañuy nek nekk euh, nit ñi dajalo gi ñi dajalo gëna mëna wañéku a wàññeeku bu ñu ñu évaluer ba xam loolu ban impact la am bu amul impact nak ñu dogo nak jël benen mesure bo xamanteni jël nañ ko parce que nit ki olof dafay faral di wax ne fot ci ndab fotante bëgg lek la mhm. def nañ fi couvre feu couvre-feu boobu euh, lan la ñu jural ci réew mi wax dëgg yàlla réew yi nga xamante ne sax ñoo ñu ëpp mbooloo maanaam Covid ba gën faa euh, garaaw euh, ñun lii ñuy def ñoom ñoom defuñu ko kon ñun wax dëgg yàlla ah, si fépp lañ tëj ah doo demee ci réew yu ah. yu mag a yi daanaka confinement duñ ci jóge waaw mais confinement duñ ci jógee mais ñoom bala ñuy def confinement dafa am ay ay préalable yu ñuy def dafa am mesures yu ñuy jël ci askan bi nga xamante ne askan wi danañ mën a supporter loolu. mais fii maanaam tey tey euh, boo demee fu mel ne France bu ñu tëjee. nit bala ñuy tëj danañ maanaam am nañ alal joo xamante ne képp ku ñu tëj danañ fexe yow ba li nga soxla lépp maanaam nga di ko am ngay dund sa kër. danañ ko def danañ fexe ba jàppale nit ñi kenn ku ci nekk sa xel du nekk ci xëy naan damay wuti lu ma lu ma lu ma dundale sama njaboot wala damay def nangam ak nangam mais ñun dañuy xëy rek tëj koo xamante ne sii boo koy tëj. ah xamoo maanaam fanaanob dépasse wala fanaano ab dépasse itam wax dëgg yàlla loolu itam euh, ay jafe-jafe la ñuy andil maanaam bu ñuy joxe exemple ñun waruñuy jël ay ay États-Unis ak France parce que ci li ñu arrangé rek lañ koy jël mais li ñu arrangé wul tey da ngay dégg ñu ne ñun ñoo raw euh, Mali ñun ñoo raw Guinée ñoo raw béréb sàngam bu ñu joxe exemple lu tax ñuy joxe foofu exemple parce que ñooñu la ñu tollool maanaam kenn ku ci nekk sa maas ngay àndal ñun mënuñu nekk réew moo xamante ni si bu ñuy réem réew yi gën a ñàkk ci àdduna yi ah ñu boole ñu ci te bu ñu ñun bu ñu bëggee euh, joxe suñu bopp exemple ñuy jël ay français ak états-unis loolu non d' accord ci avancement ci avancement man mm-hmm. nañ ne man nañ ne kat man naa ne kat Babacar mi raw na ma naa fexee jot Babacar dégg waaye Babacar mënul di dawal oto buy jar 100 millions man ma yor 1 million naan damay wuti oto buy jar 1 million dem fee di leb 1 million du ma ko fay ci kaso bi lay dee loolu mënul nekk c'est impossible loolu mënul nekk. mais dama jàpp ni Fall loolu part de responsabilité bu état bi la mais état bi ñun nit ñi ñoo leen ëpp doole ñoo leen fi teg est-ce que jotul tamit ñu waxtaan suñu biir ñu jël mi ak conscience toog xalaat xool li gën ñu def ko maanaam mooy ku si nekk dem ak sa xel. waaw du loolu laa la wax moo tax ma ne la. oui ma damay maa ngi ñëw rek. influenceur influenceur yi nekk si si mm-hmm. réseaux sociaux yi. Mm-hmm. bàyyi li ñuy def. Mm-hmm. ñu nga xam ne ñu ngi si quartier yi. di yàq xel ñu bàyyi ko. Mhm. ñu nekk ci transport yi. Mhm. tey bokk naa ko oto bi démb. Mhm. ay maire. carrément naan lii du dara soj dong la. mais dama am mer. bëgg ma si sama lamine parce que mën naa xuloog ñoom. mais dama ma obligé noppi rek bàyyi la ñuy wax ñuy wax. kenn takku si masque mu leer na ñi am nañu njaboot goo xam ne ñoom. ñoom ñoom ñoom ñu ngi seen biir benn ñen dañuy xool seen intérêt ba fàtte li ñëpp ñun lu ñu bokk. maanaam mbir mi dafa leer.

respecter les règles je ne suis di sànni xeer nga dem gox yi ñu la mais loolu moo koy yokk bi siy dee benn bi siy dee kooku si ñun la bokk. Mhm. mooy ji dafa am parce que àdduna bi yëpp leen yëkkati du depuis des mois les paralysés wu. Mhm. xaw ma di si ginnaaw xaw ma di corona am na tamit rey hôpitaux yi bondé na fees na des milliers de morts par jour kenn waxuma gis naa nit nekk si sukuraat sonn loolu feebar bi teg ko ko muy kaddi kaddi yëpp vidéo yaa ngi fi nit ñi doon seen xel ñu aar seen bopp aar seen yi naw loolu mooy solution bi mais kenn toorul ki toor mooy ñun suñu biir ñoo toor. waaw mais ñun ñoo toor. waaw lan moo tax ñu toor ñun lan moo tax ñu toor wolof dafay faral di wax ne tegale bu jubee ba jiitoo jub loolu moo am solo gis nga ñun li ñuy def maanaam li mu war a njëkk li war a njëkk gis nga corona bi mu dugg see nous avons ay deuxième vague tey maanaam qui lu bokk ci corps de l'état warul fexe ba def benn ndaje askan wi di ci teg seen bët loolu loolu moo mhm. gis nañ fi inauguration auto waxuma dama dañu première vague euh, yow nga yor toutes les informations di xaar deuxième vague nga ne da ngay def tournée économie askan wi di ci teg seen bët ñun parti bi ñu bokk di def anniversaire askan wi di ci teg seen bët mais boobu est que taxawal rek dama lay expliquer rek hmm. conseil des ministres hmm. nga doon defoon ko yow ah ci xarala yu bees yi nga xëy xëy dindi ko xëy xëy di dajale ay nit jam ñaajo askan wi di ci teg seen bët hmm. ngay xëy dem ci ay dëj ah askan wi di ci teg seen bët beneen bi ci des mooy kenn ku ci nekk ci ñun nga ne responsable politique nga ah responsable politique nga yow bu élection jotee ngay dem ci koñ di wax ak saw askan li nga bëgg nga di leen koy wax est-ce que yow bi corona amee ba léegi gisagul nga benn ministre bu dem ci goxam walla maire bu dajale ay nitam comme nam doon def soxla ay carte électeur mu def ko wax ak nit ña maanaam sensibiliser leen gisoo ko fenn kenn ku ci nekk danga non taxawal rek kenn ku ci non non man gisuma ko gisuma ko xëy na peut-être ñëpp élan bi laa a des initiatives dafa am loo xamante ne dafa am initiative yoo xamante ne tey ah, tey képp ku ñu fal ah maanaam ku ñu fal yow yaag militaire bi yéen a yem bu Sénégal soxlaa da war a wàcc ci terrain bi muy maire muy député muy responsable kenn ku ci nekk da ngaa war a wàcc ci askan wi wax ak ñoom am na ci ñoo xam boo waxee ñoom danañ la dégg la nga man ak la nga xalaat nga def ko mais loolu gisoo ko askan wi it nag ginnaaw da ngay soxla ñëw ci ñoom takk ay rajo di wax feebar bu mel nii am nga war a mën a def lu mel noonu defoo ko ñoom it dañuy jàpp ne lii. ah vraiment c'est c'est euh, kii askan wi ci jëm seen bopp jëmmi bopp yitam dañ ci am part de responsabilité parce que ñoom it li ma wax sànq ne buñ nee la dana màtte ak du màtte bul jox sa loxo mhm. parce que tey kenn ku ci nekk ci ñun buñ ne la woon oto bi boo ci duggee boo demee fee oto bi day këpp nga dee doo ci duggu mhm. kon buñ la annoncé itam yow mi nga xamante ne sa bakkan samal sa bakkan war nga sabakan, sam sa bakkan ak noko mëna samé nak yow ya, war nga sam sa bakkan ak noko mëna samé parce que buñ la waxé né la corona amna, ha yow bu lijeenti amna wala amut yow samal sa bop sam sa njaboot lolu <laughs> part de responsabilité askan wi la bu nyom, nak ñom état ak ñi nga xamanteni si ñoo ci aju ñëpp def nañ lu wara def def nañ wara def askan wi defuñu lu wara def ñom seen jaan wàcc na askan wi moom kenn wérantewul ne am nañ ci part de responsabilité parce que ñii ñii dëj ñii ngénte ñi nga xamante ne dañuy yor euh, euh, malaat bëgg malaat bi nekk ci hôpital bi kenn ku ci nekk ñëw di ko seet si itam ah loolu part de responsabilité askan wi la parce que bu ñu nee la tawat dafa am ci réew mi balaa comme ni ko sëñ Mbaye Sy Mansour waxee yàlla fi yàgg te wér comme ni mu ko waxee nañu wax ni nit ñi lii amuñu lu koy faj liñ jappalé likoy faj kenn ku ci nek moytu di raxay loxo bam set di tak masque di baña dajalo dajaloo kenn ku ci nek sa buntu kër ah bu fekkente ne ñaar nit ñoo lay xëy di set sax tek fa sel wala ga tek fo ndox mo xamantene amna ah, ordre sebel luy mëna ray micro bi bu ñëwee ñu raxasu ci. Mm-hmm. lolu part de responsabilité askan wi la mais mbir mi partager la ñi jité ak élu locaux yi conseil départemental yi. Mm-hmm. muy ndaw ñi muy ñëpp kenn ku ci nekk da nga cee am part de responsabilité kenn ku ci nekk sa part de responsabilité parce que nag première vague bi mu génnee fii Fallou. Mhm. ñëpp mobilisation de masse bi gisoo ko kenn toogul. waaw commencé ci jeunesse bi. ba ci mhm. collectivité locale yi. Mhm. ba ci état bi. waaw mooy àgg fi mu war a àgg. waaw communication bi naa am na benn jamono ma am na. mooy bi ñuy dugg ay mois de juillet. septembre. Mhm. dëkk bi tàng na feebar bi dellu na. waaw ba nu allégé waat mesures yi. Mhm. arrêté yi génnaat mën ngeen demaat dox seen soxla. waaw. non mais non la mu mën Fallou bul politique affaire parce que yow. Mhm. am nga problème sama parti. non non non ma la état deful li mu war a def de dama ne la. mi yor état. da ngay am information yoo xamante ne kenn amu ko parce que ci biir première vague bi yaa ngi xalaat beneen deuxième vague ñëw mais yow bul bul bul bàyyi bul ba parce que boo bàyyee yow itam xam nga ne am na ci loo xamante ne boo bàyyee yow itam ba pare nit ñi avant nga di leen sensibiliser ci première vague bi li nga daj ak li nga génne ci alal mais bul bayyi mais non mais attends non non non non deglu ma wax la deglu ma wax la lobby lobby ak fu meuna joge ci aduna bi. fii si biir réew mi fii si biir réew mi deglu ma. am na foyer yo xamanteni tay tey. dama ne bu nu beugé dara état fa nga lâché mais dama ne. dama nga ko Babacar dama ne. amna lo xamanteni luñ ko bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg. ya may deg te yow ya yor information bi nga xamanteni mo fiable nga xam yow lañuy laaj ëllëg waxuma la waxuma la sax manam yow lo soxla leneen ëllëg mais yow lañuy laaj ëllëg mais am na responsabilité yoo xam boo ko jëlee bu ci reculer mukk ci àdduna bu ci reculer lu ci ñooña lu lu ñu la jox pression pression waroo waroo waroo reculer wax dëgg yàlla ah yow itam waroo def loo xamante ne yoway wane na nit ñi jeex na deuxième vague ñëpp séentu woon nañ ko deuxième vague bu ñu ko séentoo wax dëgg yàlla nga yor tous les moyens yow nga génne alal joo xamante ni si kenn xamul alal ji ni mu toll dimbalee ko askan wi yaa ngi may dégg dimbalee ko askan bi mm-hmm. ah mu leer na la benn deuxième vague mi ngi ñëw te ñun suñ deuxième waru ñoo bett waruñoo bett mm. parce que fi mbas mi jaar yëpp dañoo am deuxième vague te ñun adduna bi yëpp aéroport international bi dañ fi wàcc ñu yor ay nit ci bitim réew ñuy jóge bitim réew di fi ñëw ñun avant ñuy génn sax ci première vague bi France mi ngi annoncé deuxième vague feneen mi ngi annoncé deuxième vague kon waroon na nañoo xam ne lii day ñëw wuruñu def benn relâchement wala boog bu ñu koy def ñu def ko ci yenn yenn yenn pàcc yi mënoon a dindi couvre-feu bi waaye marché yi ak de hebdomadaire yi ak transport bi wuruñu ko woon a dindi. wuruñu ko woon dindi. li ma d'accordul aussi euh, laataa may jox maanaam ma juste mu nuyoo rek ak auditeurs yi ah, ñu dem ci deuxième teme bi parce que lii lañ ko doon ubbee rek mais damaa jàpp ne aussi li jik yeneen réew yi euh, di ay pays développés peut-être jiguñu wax nga ko sa biir waxtaan. c'est des pays yoo xam ne xëy na ñun. Euh, fu ñu toll ñoom euh, ñoom weesu nañ ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg donc ñun waruñoo topp rek ci ñoom li ñuy xeexee seen mbir ñu ñu topp ci rek di ko calquer dama gis ne ñun on calque trop sur les pays développés confinement couvre-feu état d'urgence ak euh, li nga xam moo ci topp alors que peut-être ñun ñun xëy na li muy li muy lore sax fële lo loruñu ko parce que nous avons une population peut-être jeune bu ko defee également war nañu fexe économie bi ñu bañ ko rey corona bi ñëw rek rey lépp man loolu laa gis tëj marché yi tëj nangam yi tëj nangam yi rey transport bi kenn dootul circuler France mun na ko dékku Amérique xëy na mun na ko dékku Allemagne ni ki noonu mais ñun réew yu ndaw yi nga xamee ne ñun suñ koom daanaka du dara bu ñu tëjee suñu bopp pendant douze mois fu ñu jëm. waaw waaye nag mais mais Babacar ñu ñu ñu war a xool suñu intérêt aussi. non non non dañu war a xool suñu intérêt. baax na Économiquement, on est en train de mourir comme ça. Déjà, le Sénégal a un taux de croissance de euh, 7,5%. Nous avons projeté. Ah bah voilà. Mm-hmm. dem nañ 0,7% mm-hmm. alors qu'on a des objectifs d'émergence en 2035 mm-hmm. quand même soyons sérieux d'accord mais nag waaye nag wurul tax nag ñu neen suñu économie wàcc Euh, am na mesures yoo xam ne waruñu koo jël loolu moom du ma ci d'accord moom parce que nag maanaam tey euh, économie bi li koy avancer mooy askan wi askan wi mbas mi du leen dal ñuy faatu ñuy ñu ñuy sowee économie tax duñ sowee askan wi loolu loolu it mënul nekk parce que nag bu fi askan wi nekkul économie bi du jóg loolu loolu loolu du ma ci dugal <laughs> balaa Ndiaye di la dégg. waaw dama xawoon nekk ci liggéey bi maa ngi lay nuyu di nuyu suñu invité Fallou Ndiaye waaye itam suñu confrère bi <laughs> euh, Babacar Samb di jaajëfal suñu auditeurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci diwaan bu Bawol. juste dama bëgg a def sama benn participation bu ndaw rek ci thème bi nga xam ne fa laa leen fekk benn deux mots le temps que ñuy ñuy tourner page bi donc on parle de deuxième vague de coronavirus ak reconfinement bi nga xamante ni moom lañ ci nemmeeku genre état d'urgence bi ak couvre-feu bi man je pense que responsabilité bi dafa dafa partagé que ça soit gouvernement bi que ça soit askan bi nga xamanteni ñun ñun la ñu parce que bu ñu demee ba waxat deuxième vague bu coronavirus ñëpp xaaron nañ ko peut-être ci seddaay bi xeyna tangay bi mo taxone mbass bi wañéku ndax mbass mi mom mu ngi fi woon boobaak légui mars ba tey mu ngi fi kon wañéku lañ doon wax ak dikkat ndax seddaay bi kon bu état génnee def état d'urgence euh, def couvre-feu ak état d'urgence man je pense que ni état solution bobu rek mom la am jamono ji Euh, ngir mën a fàggu ci mbas mi parce que communication bi moom lañu war a def ñëpp xam nañ ko mais état dafa jéem ba sonn ñun askan bi entre guillemets ñun ñoo indiscipliné wu mënuñu respecter li nga xamante ni moom la ñu kër docteur di digal parce que port du masque lu simple la biñ ne nit ki dafa war a xëy ndékki dafa war a xëy añ dafa war a xëy reer nit ki nu mu mënti def dina xëy ndékki dina xëy añ dina xëy reer moo xam ki yor ba poosam fees moo xam ki ñàkk sax ba amul lu mu añee dina dem ñaani ji moroomam wala mu taabal taabal ngir am lu mu añee kon takk sa masque boo xamante ni cent franc rek lay jar wala nga jël sa benn sagaru popeline jël sa pusaak sa wëñ ñawal ko sa bopp taf sa bakke nag sa gémmañ loolu dafa yomb ñëpp mën nañ ko parce que instant bi askan bi ñoom ñëw soxla ñu wér Sénégal dafa am population bu jeune lool moo tax na mbas au niveau international donc ñun jeunesse bi ñun ñoo protéger suñu ay mag yi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër gi dini waratu la am nekk di marche la am xale yi dañoo indiscipliné ñi nga xamante ne ñoom que ça soit muy Thiès que ça Dakar ne ñi couvre-feu bi da leen impacté ba mënuñoo egg seen kër ñooñu ñu ngay daw di utu ji bus ñooñu ñu ngay daw di jënd ji fondé balaa maire bi di laale mais xale yi marché mooy ñi nga xam ne ñu ngi toog seen buntu kër di jéem a naan ataaya wala di ruube wala di nekk ci réseaux sociaux yi te léegi réseaux sociaux yi ci boppam la ñu war a tëj état couvre-feu bi wala réglementé ko noo xamante ni képp ku def sa vidéo dugal ko ñu topp la on a les moyens de le faire jéem la teg baaraamu tuuma réseaux sociaux yi moom mooy yokk lépp te état bi am na moyens yi donc nañu jël responsabilité bi ñu moomal suñu bopp ñu askan bi rajo bi commencé que ci buntu kër gi commencé que feneen takk suñu ay masque def digle kër docteur mas mi dem parce que économiquement parlant on en souffre socialement parlant on en souffre sanitairement aussi on en souffre parce que kër docteur yi sax amatuñu capacité d'accueil malade yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk kon responsabilité ñun la askan bi avant état njiitum réew mi tamit di ko wax mu gën a def ay effort parce que dëkk bu mel ni Sénégal ñuy wax euh, économie bi 7 pour cent di demaat ba 1 donc ay la yéwén am na yeneen solution yoo xamante ni moom moo gënoon a kii lu du état d'urgence mais li ñu naan ku li fi rek moom moo fi am kon nu ñu jéem a respecté et couvre-feu bi djema respecter état li mu wax ñu xol bu joxé ñu xamné li lii marché na dox dox bu doxul ñu djema xol xool yeneen solution parce que tamit ku euh, coronavirus feebar la bo xamante ni maîtriser wuñu ko donc dañuy tâtonner donc il faut que ñu accepter tâtonnement bi ba djema trouver solution ñun ñep ñu nekk ci jamm loolu laa amoon dama ci wax di gëna ñax askan bi ñu responsable kenn ku nekk jël sa responsabilité bop jangaru ju dëkk dëdduñu ñu nekkat ci suñu ay activité parce que nit ñi dañu sonno partie euh, bu émission bi la di di di géew bi ñu bëggoon ubbee ak euh, matukaay yu bees yi nguur gi jël par rapport ak deuxième vague bu coronavirus couvre-feu à Thiès et Dakar ak Kayo, chaque jour nous y deuxième partie euh, politique politicien euh, alliance pour la république de Fallou donc euh, jafe-jafe yi seen biir parti Fallou y a un ngi kaas rek y <laughs> a la koy avant de nous bandum c'est quoi le problème au sein de paire, Fallou ak problème dañ la joxul sa cër da nga nekkoon ci biir bu yàgg ñëw au moment du partage bokkoo wala lan lan la lan mooy problème bi. non man problème. si tu as un problème. non amoo problème. yaa yow sa page Facebook chaque jour yow yaa ngi ci yaa ngi ci sànni xeer. amoo problème ak alliance pour la république loolu moom moom sama baat ne poto. Euh, li ma amal problème mooy ni ñuy dox doxalin doxalin maanaam man jëmmi euh, parti bi. awma moom problème quoi mais problème mu doxalin bi mooy mooy mooy mooy sama sama sama sama problème ndax euh, bu ngeen xoolee dafay mel ne euh, man li may wax toujours ci niveau département bi laay laay laay laay waxee ci niveau Touba laay wax ndax boo xoolee dafay mel ne bi ñu commencé ba tey 2012 ba bisub ba bisub tey may wax ak yow dafay mel ne euh, Touba dafa bokkul ci lenn loo xamante ni si maanaam mi ngi koy def maanaam ñi ngi koy def ci état ci ci mooy mooy mooy euh, acte politique bi euh, ñi fiy politique amu ci kenn koo xamante ni sii tey mën naa ne jox nañ la sa cër rawatina askan wi man su may wax côté boobu laay waxee parce que nag euh, bu ñu nee Touba ñu natt ko ci maanaam électoral amul benn. commune boo xamante ni si tey yaa ngi ci yaa ngi ci ci territoire national bi nga ëpp ko électoral kon man su may wax ci côté boobu laay waxee waaye waxuma ci côté alliance pour la république ak yu demee parce que ñun ñun ñu ñëwee ci biir parti bi ñoo gën a xam ne ñun suñu parti bu dee faible rek wax dëgg yàlla euh, dafa faible kon amuñu amuma problème ak ak parti bi waaw. damay gis ngay bind waaw waaw si mais mais mais dama ne dama ne lu musul am Sénégal 1960 ba léegi moo fi am Senghor bu masaan defar état day équilibré dégg nga euh, Abdou Diouf buy defar état day équilibré day équilibré Abdoulaye Wade bi mu fiy nekk di defar état itam dafa doon équilibré mais dama constaté ne Macky Sall depuis ah ñaari remaniement yi passé yëpp équilibré wul cinq pour cent yi wala 60 pour cent yi ah defal say investigation discours bu ñëpp ci benn raison lañ dëkk. discours bu dangereux ngay def actuellement. non amul discours bu dangereux. parce que moo am réew amul loolu de. non non réew amul loolu mais non xaaral dama ne dama ne dama ne réew amul loolu. ñëpp bokk réew mi. no ñun ñëpp ñoo bokk réew mi gis nga. ñun ñëpp ñoo bokk réew mi mais li am dañ ko war di wax mais département de Mbacké bii département de Mbacké tey bu ñuy defar état bu ñuy defar réew mi économie kan moo ci gën a participer eh, département de Mbacké lan moo tax maanaam Podor tey Podor ñu gën koo jox valeur ci maanaam ci biir état maanaam ci département de Mbacké fuñ ko teg teguñu ko fenn te loolu moo am demal tey nga dem département de Podor

réew mi dafa am fu mu toll ay cadre amul ci département de Mbacké loolu loolu ay caaxaan la lu toll ne région de Diourbel lu toll lu toll ne région de Diourbel lu toll ne région de Diourbel non dama ne lu toll ne région de Diourbel benn ministre moo fi am man moom laa fi xam demal Fatick demal Fatick ñaata ministre ñoo am Fatick te te ñu bari dañuy jël ne nedda ko band mooy lan nit mbokkam déedéet tekkiwul loolu nit garabam la tekki. <laughs> mais nit C'est garabam la. kon sens péjoratif bi la ñu mais mais mais loolu loolu dafa non péjoratif bi péjoratif xam ki ay la yaa ngi dégg mais bu dee sens bi ñu ko jëlee ñun xam nañ ko mooy li ma bañ a wax la mooy am na am na xeet bu nekk ci kaw mm-hmm. jël ay mbokkam teg ci wet gi nee naa la discours boobu moom mm-hmm. fàllu mm-hmm. c'est pas un bon discours mun nga xeex mun nga non mun nga xeex sa biir parti sans pourtant ngay génne loo xam day tasaare réew mi di ko fracassé mënu ma koy xool naan euh, dafa dafa xalak dafa sokalaak dafa nangam mais ni ma ko gisee rek laa koy waxee ni ma ko gisee koy parce que loolu l'a constaté. moom lañ koy laaj non mais pour leen neexee poser question boobu mais c'est-à-dire nit ki man li ma man li ma man li ma gis. président kañ ngeen ci ci ci ci ci ci ci kañ ngeen est-ce que vous ngi dégg waaw loolu moom man leer na ma mi ngi dégg sama jambat mhm. loolu leer na ma mi ngi dégg sama jambat man man sama gis-gis laay wax. mais mais mais tamit euh, li naan yaa ngi yaa ngi yaa ngi sappee union bi maanaam Sénégal benn bopp la. Sénégal benn bopp la kenn dama ne dama ne gis nga gis nga waxi olof yi lu waxi olof yi dafa amul sens <laughs> njariñ loo fekkee xam nga amul sens buñ ko doon wax duñ wax république mhm. parce que république bi buñ ci doxal. Mhm. doxaluñ ci. Mhm. ngir ne man li may liggéey tey obligatoirement damaa war a fekke njariñ li ñuy liggéey senegal tey pour suba ak gannaaw suba kon baatu olof naan njariñ loo fekkee dañ koy wax nii mais amul amul amul sens kon nit ki li mu gis damay jàpp ne war nañ ko wax su fekkente ne moom bi mu koy def jubluwu ci loolu jubluwu ci loolu. ëllëg bu koy defati mu def très attention ci xam ne nit ñi wala kat diw lii mu constaté kat ah naa jéem a xool beneen méthode beneen équilibre mais loolu loolu nit ki li mu li mu gis. man damay jàpp ne gis mooy façon politique bi nga xamante ni xëy na yéen bon ngeen xam wala moom ngeen tàmm. Hmm. président doxul ci loolu mooy pression. Fallou bon moom moom moom leader la il se permet xëy na mu toog am fu mu génn pour ñu mën ko bàyyi xel. <laughs> est-ce que doxee woon parce que Fall tamit dama seetlu grand rendez-vous yi am yëpp yow fekk ni ngay taxawee du bokk démarche parti bi. dem nañu élection am na fi ba tàyyi nga wan ginnaaw APR. non ma dama ne yow mosuma dox yow mosoo fal ni ba pare bëgg taxaw. déedéet déedéet déedéet yow mosoo sa parti bi yow. déet da ngaa boycotté ay. da nga fi boycotté boycotté nga fii. 2014 référendum yi je pense que yow. déedéet déedéet déedéet 2014 rek. non da ngay dem ba pare ñu woowaat la. moom da ngay génn moom da lay waat moom da lay waat. waaw defal ndànk. dañ laa jëlee defal ndànk. waaw xam nga parti boo ci bokkee da ngay joxe sa xalaat xalaat bi nii la lii suñ ci demee dañuy perte suñu demee nii dañuy perte amul maanaam fii laa ko waxee woon soo mi ngi nii ma ne la zoo élection yi ñuy dem su mhm. fekkente ni nii lañ ciy demee dañuy perte dañuy perte te man luy perte bugguma ci ànd waaw mais nag da nga am taxawal taxawal non déedéet déedéet non d'abord solidarité yow ci biir ci biir nga war a opposé wu d' accord ma mais bu xasee ba génn da nga am devoir ngir ànd ci déedéet déedéet mënuma ànd ak yow d' accord ñun bokk ci oto bi nga seet seet xalam ko ci suuf ma naan damay solidarité di daanu du ma ko def hmm. parce que man ngaa daanu yow dara du la dal ma daanu man damm du ma ko def 2014 dama ne leen élection yi buñ ci demee nii ci suuf lañ jëm hmm. seede naa ko fii laa ko waxee woon waaw législative ñëw lu ma leen wax am na ci koo xamante ni si dañ ko dugaloon ci liste ba léegi daf ma mere dama ne ko daf ne ma ah man kat lañ investir nangam ak nangam wax ba doyal ma ne ko sawaay gis nga liñ bëgg a doxee bu fekkente ne noonu la ñuy doxee bul yaakaar ne da nga dégg honorable nii ñuy doxee baaxut mu mere ma ci mais lu ma ko waxoon est-ce que dañ na référendum lu ma leen wax mu xam nga parti buy ah, parti dañ koy animer muy dox élection ak baña a élection bok yam ndaw ñangi ngi luñ Yam, ñu am teede débat do gis ñu def ko lépp logis gis ñuy def ah dafa am lutax ñu diko def wala un moment buñ koy def mais parti du doxé non parti toujours dafa war di activité mo nit ñoy yam dafa war di dundu mais no, ni ngay non non amul ni ngay doxé man no. ma non. Ah, man bala may non non non c'est pas que. discipline am nga am nga am nga carte am nga man waaw. man am naa carte APR. waaw damay laaj c'est une question. damay laaj ba pare. na am nga ko ba pare am nga ko. man kañ la am carte APR. très bien ba pare danga koy doxalee nii Fallou. non mais. bon exemple quand même a wane déedéet déedéet non dama ne yow. boo ma dikkoon laaj ne ma lii est-ce que baax na wala baaxul. te maag ñoo ko bokk ma ne la lii baaxul mm-hmm. buñ ko defee nii du baax. nga ne man man nii laa koy defee ma ne la bu fekkente ni nii nga koy defee te man sama gis-gis leer na ma ne du baax du ma ci ànd ak yow man musuma jóg ne rek nii laay jaar te joxewuma proposition musul am parti lan lañ wax kenn ku nekk na wax sa xalaat ñi évaluer xalaat yi am na ci ñoo xam ne ni ma xam xam nañ ko de ñoo ko gën a xamaatoo waaye duñ ko wax lan moo tax duñ ko wax seen intérêt personnel mhm. seen intérêt personnel moo moo tax ñu di ko def. mais Fallou nag teg nañu. non taxawal rek teg yi tax ngeen di wax seen xalaat. parce que Cheikh Abdou créé na fi à chaque fois ay zone te am nga zone boo bokkoon. waa léegi. yow yow non déglu ma yow léegi yow léegi wax nga wax ji zone bi élection jub see lañ ko créé est-ce que ba booba amee léegi mas ngaa dégg benn zone bu dajaloo di waxtaan amut léegi lan la ñuy xaar élection jot léegi askan bi lan nga bëgg ci ñoom yow daal da ngay soxla ñëw laaj leen. ñu paré nga dem saw yoon. mais serigne Fallou est-ce que. mais loolu mënul nekk. Euh, serigne Fallou est-ce que aussi kenn ku nekk warul jël sa responsabilité bopp parce que parti lañu wax suñu ñu demee ba bien vrai que waroo waroo xalaatal sa bopp kase mais si sa biir goox am na loo xamante ni permettre nañ la ko nga mën ko fa def comme yaa ngi wax ni léthargie moom ngay nemmeeku que ni élection buy jub buy jub la ñuy yëngatu. Mhm. mais yow ci sa biir koñ sa fi ngay yeewoo am nga droit nga fay waxtaan ak nit ñi am nga droit nga fay def ak tey débat te du tax yaa ngi tegu ak yoon ci ni nga xamante ni noonu la sa partie question aussi comportement bi ngay dénoncer de l' de est-ce que aussi pouvoir bi parti bi ak déglu bi nga bëgg est-ce que dina yomb tant que yow démarche bi. xam toujours ñun dañuy wax ne démocratie ba pare ci biir ñu euh, démocratie nous xamante ne dañ koy parce que da ngay dégg ñu bëgg laa coincé ci ay discipline de parti discipline de parti warut tax ñu euh, prisonnier sam xel parce que benn parti man parti bi ma bokk laa xam musuma bokk beneen musuguma musu maanaam musuma gis ba ci fii muy alliance pour la république benn benn organisation moo fi dox muy seen comité directeur wax ma benen bu fi dox du fam du ndaw du sas du dara. ndaw yaangi dox moom ko baa ngi non xam nga dox manam tok ci tok jël saw kayit bind communiqué ak dajalé nit di wax lolu bokku ñu xam nga communiqué kum neex nga def ko. commune bind sa communiqué sanni sen ñaata nit ñofu wara nek sans sans nangam personne nga fa règlement intérieur parti bi ah mëtul sax 30 personnes ta saa fa nek kon man yow li ma li ma wax ni manam danaka man nga ko wax manam ñi nga xamanteni ñepp ño nek ci eh, comité directeur comité directeur bu alliance pour la république niwa département de Mbacké amul kenn ku fa mëna ku ca bok ku fay jëlé benn information ñew wala nga jox ko information bu yobbu ko fa amut hmm. manam yeen li ngeen ñuy wax yeen journalistes yi daanaka maanaam ñun loolu lañ leen di tontu da ngay toog ba mu yàgg ngeen seen parti bi dafa pëccaxoo dafa pëccaxoo armée mexicain la soxna si li ma laaj sànq mais man maa ngi def li ma man bu xew amee danaa ci dem sama koñ maa ngi waxtaan ak ñoom lu ma man maa ngi koy def lu ma dégg itam ci dëkk bi te la ma ca man ci sama doole ma dem danaa ko def. non du question saboté. Mm, yow saboté non yow saboté nga ko mën a jàppe man man xam nga xam nga non. waaw defal ndànk defal ndànk wax la defal ndànk non kañ parce que temps yi yéen seen parti mënuñu booloo génn benn benn këyit. waaw ñëpp tënku si ni yéen a ànd. ñëpp mm. nag muy ndaw di mag ñëpp. secteur yëpp déedéet déedéet yow nga bañ ànd ñu ci déedéet déedéet non ñu ci mooy mooy mooy euh, bi ni euh, mémorandum pour wane ni euh, président Macky Sall nga fi def ànd nañ ci te dinañ ànd ak liggéey ko waaw yow yaa ngi wax yaa ko def après mais yaa ngi wax parti ko def parti ah, parti parce que la majorité. des acteurs des déedéet loolu. loolu loolu moom moom signature ñëpp dama ne. déedéet nga ñëw xëpp déedéet déedéet gisoo signature ñëpp de. gisoo signa lan moo la opposé dama ne dama ne loolu loolu gisoo signature ñëpp te da nga ne yow parti moo ko def. Mhm. parti defu ko de. lan moo la opposé non defal ndànk man Cheikh Abdou Bali jiit Cheikh Abdou Bali mi ngay wax jiituwuma ci parti bi. man parti bi bi ñu koy fondé maa ngi ci dafa ñëw fekk ma ci biir ñu jox ko cër boo xam ne xëy na joxuñu ma ko. waaw taxawal rek non bul ne ma da koo liggéey. Mhm. dama ne sëñ bi suñu sëriñ la. ñu jox ko cër boo xam ne man mii man mii keroog ba mu koy def man yëguma ko man damaa toog dong ubbi internet bi gis ko. Mhm. te munut ne Fallou bokkul ci parti bi am na ñeneen ñu baree bari ñoo xamante ni si signature bañ signé ak liñ leen wax bokkul. Mhm. loolu rek la nañ ko sax passé na. loolu maa ngi moom réglé nañ ko parce que acte politique la def ma def act politique parce que man damaa jàpp ne boo yow yaa ngi ne ma dangaa bokk ci zone du loolu nga ma wax nga ne ma zone baa ngi waxtaan xanaa zone bi buy waxtaan war nañu ne ki jiite zone bi war na ne kat ñun bi ñuy campagne ñun ñii ñoo àndoon signature bi def naa ko ba pare peut-être mën naa bette xaaral ma woo ñii. ban poste nga yoroon man. man commission finance laa yoroon. président de coordinateur moo non c'est pas que non non <laughs> non attends boo bokkee ci bureau rek. ku bokk ci rek war nañ la mën a woo yow. Mm-hmm. rendre la compte. tout à même boo ko defee ba pare. mën nga rendre compte. Mm-hmm. mais waruñu mën a toog te beneen bi ci des erreur mënu ko passé parce que tey lu toll département bi ñuy defar ah ñuy defar euh, état gouvernement bi ñu sàppe leen ñëpp amul kenn ku ci bokk. laaj ñu ci kenn xalaatam yaa may dégg nga xëy xëy woo aw nit signéloo leen ñu signé nga joxe. kontaan ah nga kontaan ci. te xamuñ ne politique moom rapport de force la. xam nga wax dëgg yàlla loolu itam boo nee ma parti. yow xam nga da ne ma parti ñoo ko def. Mhm. yow parti ñoo ko def nga ma wax signature yi bu la neexee mën naa la ko génneel ñan ak ñan ñoo signé te yow. am na ñoo xam ne signé nañ ba pare am na ñoo xam ne nañ ba pare mhm. gën di rewaani ko loolu. mais Sadaga ak non waxuma sax dama ne déet àlla signé signé àlla àlla signé wul yëgu ko àlla bokkul ci parti bi. Eh, signataire yi turam nga ci. bokk ci déedéet àlla signé wul de bu la neexee nga génne ko léegi. d'accord àlla <laughs> signé wul de. non non turam si signataire déedéet àlla si la signé wul. mi ngi may dégg am na signé par procuration c'est-à-dire. déedéet dañuy dem ba feeñu. wala wallaay déggoo li ma la wax. déggoo mu la Allah signé wul. mom kay gàddu man kay man maa la wax lolu <laughs> bu la nexé xam nga dossier bi mi ngi ci mi ngi ci internet ba légui bu la nexé nga tapé ko. d'accord Mor gay bu la nexé nga né signé na. Sadaga bu la nexé nga né signé na. Cheikh Abdou Bali signé na. te am na ñu signé ba paré génn ñomi def sorti revendiquer lu mel noonu. Mhm. Moudou Bara Dolly defu ko. général ah. <laughs> kon kon kon dafa am côté bu côté bu côté boo côté côté boo suivre ak côté boo suivre. dama la bëggoon poser quelques série une série de questions yoo xam ne dama bëggoon xam lan moo la opposé dëgg-dëgg ak alliance pour la république. man li ma opposé ah, man man man li may kaas ci alliance pour la république. lan la mooy niveau département de Mbacké. ci réew la bokk nañ leen jox cër. Mhm. gis nga euh, programme yi président am boo xoolee ba ci PIDC nga xamante ne si liñ war a dugal ci département bi. yéen est-ce que def ngeen gëstu yi est-ce que loolu dugg na fi. deuxième phase bi mo ngi ñëw. non waxuñu mi ngi ñëw. am na ñoo non non attends non non dama état sax projet la. non non état lañ mëna wax non dama ne état projet la. Ah. mais dafa am dama ne yow tay ji bala ngay dem marché da nga duggi. d'accord état projet la. ku ne xam na ko mais est-ce que projet yoyu manam tay ñi nga xamanteni ñoo ñëk am est-ce que ñoom dañoo gëna wara yello wala lan. selon niveau de pauvreté ak de de de de lay lañ la ñuy la ñuy def niveau département wa dama lay laaj niveau département. Mbacke amna ñum ñu mu tane. waay Mbacke ñan la tane ci wàllum développement Mbacke ñan la tane. non dama né ñom wa département de Mbacke ñan la tane demal demal route de Sadio bi demal route de Sadio. ko xool singularisé tamit non bul ne singularisé <laughs> demal tu bëgg la dem Touba Fall. ok. bëgg la dem diwli gi wala feneen ak feneen. loolu kese moo la opposé ak non non du loolu kese de. wala nga a beneen bi ci des beneen bi ci des mooy ndaw ñi. Mhm. ndaw ñi maanaam tey xoolal ci niveau département yépp demal Fatick demal feneen ndaw ñooñu cër cër yi ñu leen jox joxuñu ko sax ndaw ndaw ñu département de ñaata yoon lañ fi ñëw ne dañuy formation la ñuy defal ndaw ñi. Mhm. ñaata yoon est-ce ndaw ñooñu ñu ñu defal formation. muy ñaar maanaam yëg na yëg ma gisuñu ci dara seen bopp. muy ñaar waaw muy ñaar ak lan ah? dama bëgg xam dëgg dëgg la moo la boole APR dama ne ak lan dafa non du question man APR xam nga président de la république boobu voilà waaw parce que moom miy jëf ak lan ma dafa bari maa joxuñu maanaam tey dafa am loo xamante ne joxuñu la sa cër aussi man dama ne buñ ñoo ndaw ñooñu buñ leen joxoon cër ak femmes yi fi nekk tey Cheikh Abdou Bali mii benn yow ministre bi wax ni li mu mës a financé fii si ay femmes financé ko fenn taxaw assemblée wax ko. waaw ministre Ndeye Saly Diop. mu ne financé ba financé opposition taxaw na assemblée wax ko. Eh. loolu femmes yi waxuñu wax waxloo ñu la ko. dama ne la dama ne la dama ne waxuñu dama ne formation yi ñun ñëpp am na fi ñoo xamante ni sii dafa bari sax li alal ji ñu def ci formation bu ñu leen ko joxoon ñu liggéey yi bu ñu leen ko joxoon ñu liggéey yi Babacar. nañ waxante li fi nekk. mais fii ñëw benn dafa da nga amul information yi. fi ñu doon nii deux ONFP dugal na fi lu toll 2000 deux mille euh, ay ñu war a formé. ci département bi waaw formé am na ñuy formé woon tam di. mais yooyu da yooyu yooyu dafa mel ne xamuloo ko. dafa mel ne man man man néew ma la for néew ma la defaluñ kenn formation man la ministre taxaw na assemblée fi tant de femmes ñu ñoo leen financé kenn weddul ba léegi ba opposition financé na leen ce qui veut dire que ni kon opposition dañ see bokk quand même ñëpp mais mais mais yàggu di koy gis. waaw dama ne xam li ngay wax ni Fallou yow say say say say say problème kese la. non déedéet mais bu si boole bu si boole askan wi Babacar man loolu laa bëggoon Babacar Babacar dama ne la xëy na militant néew ma la néew ma la néew ma la defaluñ néew kenn formation joxuñ ko dara ba léegi man waxuma la loola mu bëgg cee jaar man xëy na man waxuma la defaluñ kenn formation formation moom liñ ci def bari na mais nit ki ah. ma alal ji ñu yore budget bi ñu yore ci formation lañ koy def ba kañ fallu yo buñ lay dégg ngay wax day melni dafa am cër bobu gon te yoro cër bobu nonu ah, motax tax moo nga japp ngay ngay <laughs> ngay ngay waxee ni ngay waxee xam nga xam nga bu la neexee bu la neexee nga japp lolu lolu duma ci tontu parce que man budé sama ñariñul bop man kessé man kessé buma ma nelaw man personnellement man fàll budé sama ñariñul bop personnellement man buma ma nelaw wax dëgg yàlla. te sax yow Fallou est-ce waajaloo woon sax benn instant bëggoon a euh, wan ginnaaw Macky am foofar kooku dikkaat si Macky kart gi jaxasoo. <laughs> daa mel ni dégg naa ko de loolu am na wala amul. <laughs> daa mel ni doon da nga naan ma da nga naan ma da ngaa am foofar directement kay. <laughs> waaw feneen foofaroon loolu daa mel ni dégg naa ko carte gi jaxasoo ngay dabu. man man man man fu ma bëgg a far. demoon nga feneen wala demoo woon feneen. wii wu non mais instable aussi. waaw dama ne. bu tey yaa ngi. dama ne APR bu subaa yaa ngi opposition. man laa wax man man personnellement man bu da ngay jiix jaaxal. xam nga xam nga dama laa tontu sax yow te sa tontu li <laughs> dafa mel ne da ngaa may wax dama ne la man musuma bokk benn parti mhm. politique man loolu laa la wax 2008 ba léegi xam nga leer na kooku ku la ko wax kay nga di ko laaj. Mhm. da ngaa far fii wala da ngaa far fee da ngay da ngay gis sa bopp rek. mais man ngay demaat feneen ci suuf man. loolu moo politique ñoo ànd déggoo li ma la wax. dama ne la man musuma bokk benn parti. musoo jéem a jàppale keneen déggoo li ma la wax alliance pour la république laa ne la ba mu sosoo ba léegi musuma nekk ci benn parti. d'accord politique. ku la ko wax nga di ko laaj mas ngaa nekk fii wala mas. am naa sañ-sañu nag wax dëgg yàlla li ma gis te neexuma ma wax ko ma nekkuma ci prison. Mhm. man maag bukki ñoo bokk boroom. man kenn moomu

am na ci lu ma bett mais am na ci lu ma bettut. lan moo tax ñu dem. parce que dangaa wax sànq ne ma sa page Facebook li nga ciy bind. waaw ah, man de damay gis ngay kaas. waaw kay léegi avant remaniement lan laa def ci sama page Facebook. lan nga ci defoon. Ah, waaw léegi boo ko xoolee danga ko gis. Hmm. parce que am na ñoo xam ne dama jàppoon ne président de la république dina leen génne. lu tax parce que bind naa ko euh, seeni photo génne naa ko ci sama page Facebook yaakaar naa boo duggee ba léegi mi ngi ci. Hmm. am na loo xam bett na ma am na loo xam bettu ma. lu la lu lu tax lu tax loolu. dañu am ambition présidentielle. dañu bëgg a falu non du loolu xam nga xam nga olof maanaam dañuy wax ne ku bëgg wala ñëwum ku rey ku bëgg a rey saw bëy. danga ne daa ràmm wala dafa feebar wala deme dafa demee noonu te ci parti politique la ñu nekk te ma gis nit ñoo xamante ne bu ñu waxee dafa am lu tax ñu wax wala dañ leen a loo te loolu lu ci ëpp fu mu amee. Euh, ñooñu bu ñu ko defee ña ñuy ña ñuy ŋàññ wala ña ñuy wax wala ña ñuy jiiñ wala ña ñuy tuumaal dañ leen di génne ci état foofu laa sukkandiku woon moo tax ma wax ko. Hmm. te loola it am na ci loo. xamante ne njuumte la ci ñoom wala njuumte la ci président Macky Sall pour yow. non mën naa nekk njuumte ci. Euh, noo ko jàngate yow. noo xalaate mbir mi. voilà man ni ma ko xalaatee wala ñoom li ñu am ambition ngir wuutu président Macky Sall moom moo tax. waaw non xam nga bu dee bu dee bu dee ambition moom am nañ sañ-sañ bi parce que ay Sénégalais lañu. te jàpp naa ne itam euh, am na ci ñoo xam ne yàgg nañ ci état xam nañ lan mooy état xam nañ itam nguur nan lañ ciy jote ak nan lañ ciy ñàkk a jote mhm. kon bu ñu amee ambition ñooñu ñoom ñoom la concerné. troisième mandat bi yoon la pour yow wala. troisième mandat. troisième euh, candidature bu Macky Sall. troisième candidature est-ce am na ci sañ-sañ. non dama ne loolu man du ma souriste bay xam am na ci sañ-sañ wala amu ci sañ-sañ waaye nag. point ba fa ma taxawoon démb man fa laa taxaw moy président de la république ñun biñi campagne 2012 2011 mom ci jëmi bopam dafa yëkëti won kaddom né président Ablaye Wade amul sañ-sañu am 3e mandat noné ñuko ko won woon wad nak man ni la ko bañé ba hmm. man anduma ci parce que buma ma sañoon euh Sénégal dana nek réew mo xamante Euh, maanaam dañ fi jëlee exemple mais dootuñu joxe mukk naan dañuy dem France ak dañuy dem béréb sàngam di fa xoole ay exemple parce que mënuma d'accord lañu la ñu bañoon démb ñu di ko nangu tey. su boobaa loolu nag en tant que apériste xawar rek bu dee nag bu dee nag déposé naam déposé candidature am wala ñàkk a déposé candidature am walaabal na wala bala wala walaabalut loolu conseil constitutionnel moo ci mën a prononcé wu. waaye man personnellement man laa wax man Fallou. lu ma nanguwul woon démb du ko nangu tey sama position mooy d'accord ma mu posé maanaam. candidature troisième candidature. da ngay nekk si biir après di xew la ngay génn su boobaa. waaw loolu àgguñ ca comme moom ni mu waxee ne moom moom bu ci prononcé woo ah damay xaar moom ba mu prononcé woo lan lay def. parce que man li ma jàpp mooy li ma jàpp moom mooy nee na du def troisième parce que loolu la wax. déedéet waxu ko si si si. non non déedéet déedéet waxu li mujj wax daf ne du ne oui du ne non. waaw léegi waaw loolu laa la wax mais man li ma njëkk a jàpp. déedéet daf ne. ren mu ne sama waxu daaw mooy sama waxu ren. déedéet maanaam njëkkewul lool de daf ne ama muy wax du ma ne oui du ma ne non daf ne leen waxu daaw ja ak waxu daaw jéeg ji dara soppikuwu ci. waaw kon nag. mu ne ko danga naan wuy wala non mu ne ko du ma ne wuy du ma ne non ginnaaw moom waxi daaw jéegam nee na soppeekuwul ak waxi daawaati jéegam soppeekuwul man wax joojee laay jàpp mais du ma jàpp ay wéy ak i mhm. man foofu laa féete. Euh, ñëwu Idrissa Seck lan la mun a yokk ci seen parti bi ak ci seen nguur doxalin bi. waa doxalin bi moom xawma lan la mën a soppi. yokk la lan la mën a yokk man xawma ko. parce que moom ci jëmmi boppam li ñu ko jox daf ne woon amul njariñ ci réew mi lu amul njariñ ci réew mi nag nga ne amul njariñ ci réew mi ñu jox la ko kon man mënuma ci xaar dara. kooku lan laa ci xaar parce que nee na conseil économique social amul njëriñ. non kii la waxoon woo conseil. non man kañ gis naa ko. conseil amal gàmm bi yëkki mais au conseil la waxoon. amul waxul woon conseil <laughs> loolu moom mën naa la kii yow parce que man moom lu yi di wax damay dem ba teg sama bët. mais au conseil la tëdd. dem ko. Ah, lo lo au conseil la wax ne amul njëriñ. mais on peut supposer que xëy na ñaari institutions yëpp ñoo bokk. ñoo bokk jàngat ci ñoom rek xam naa peut-être. xam nga Sénégal. Hmm. si man li ma jàpp man li ma jàpp mooy Idriss Seck bu ñëwoon ñu dissoudre conseil économique social au conseiller taxawal Sénat jox ko ko man laay gën a séentu ci njariñ mu mu am njariñ ci la. mais mais li mu tamit wax dinañ ko nangul tamit. mooy réew mi fi mu toll. Hmm. tey d'ailleurs ñu ngi koy dund. non ma la wax Sénégal damaa accepté. ñew idrissé xam nga lan motax ma accepté ko tay cierno Alassane Sall xam nga bayina bu ñewaton dama accepté ni cierno da wara ñew man dama japp ni képp ko xamanteni bokkon nga ci alternance 2012. man nga delu ci wat ci bir man dama la accepté ak ko mën a doon man dama accepté ñu delu ci parce que dafa am lo xamanteni dañ ko doon xex ñom ñepp ñu and ci ñu diko xex kon bu demee ba réeroo am nga dem nga demaat ba gindi gindikoo dikk nga dellusi man dama laa accepté xam nga kan laa accepté wul mooy ki nga xamante ne da nga ne woon Macky Sall du falu Macky Sall mënut dama koy xeex. Mhm. du candidat bi gën mu gañe nga bàyyi lépp loo nekkoon ñëw. man man kooku laa d'accordul man koku la d'accordul mais kep ko xamanteni ne nga alternance 2012. Mhm. man d'accord na ci sa ñew mais est-ce que bu ñew tamit ñëw gi uh-huh, ñëw gi itam ñew gi itam ñew gi itam war nañu xol lan mo ci intérêt Sénégal. Mhm. ba paré man nga ñew duñ la jox place mais nga am sa xel ak sa xalaat di xalaat di jox njiitu réew mi wala nga am sa xel di xalaat ah mën a jëlee leneen loo xamante ni si feneen lay jógee di ko indi ci réew mi c'est pas nyep ñëpp dañuy ñëw kenn ku ci nekk da nga wara nekk ministre wala da nga wara a nekk directeur général mais képp ku ñëw ci biir ci biir benno bokk yaakaar te bokkoon ci euh, alternance 2012 man wax dëgg yàlla ooma ci ooma ci problème mais nag dafa am loo xamante ni si itam dañ koo war a bàyyi xel bu baax a baax parce que sànq da ngeen fee wax wax ju am solo da ngeen ne Sénégal demee ndaw ñi dañoo discipliné ndaw ñi dañoo nangam ndaw ñi dañoo nangam waa léegi mais ndaw ñi discipliné googu ngeen di wax ci ndaw ñi ñu di leen caricaturer carrément lañ leen di def te ñooy mag yi ëllëg waa léegi est-ce que ñoom kàddu yi ñuy dégg ci ñi nga xamante ni ay kilifa lañ di leen jiite. Mm. est-ce que jàpp ñu ne kàddu yooyu ñoom mooy réalité est que kàddu yooyu mooy réalité kàddu yooyu du réalité dañoo war di waxante li nga xamante ne mooy dëgg. te yow mi ko xamante ne yaa koy wax nga njëkkee ko ci sa bopp Idriss Seck dafa génn dem bi mu génnee dem ah, am na sañ-sañu bëgg am na sañ-sañu wut réew mi buñ ko ko joxee ak buñ ko ko joxut amaat na sañ-sañu it ñëw waaye dafa am kàddu yoo xam boo ko xasee yëkkati boo doon maanaam 100 kilos mëtatoo 100 kilos 5 kilos nga maanaam lépp looy waxati ah, ndaw ji bu fekkente ne dañ la ciy roy maanaam wax dëgg yàlla du du du rafetut mm-hmm. Mm-hmm. waaw man su may su may su may ŋàññi kàddoom yi mu doon sànni man yooyu laay ŋàññi mm-hmm. fan ñu weesu am na Babacar Marema euh, suñu invité benn actualité bu bu forte mooy levée des fonds bu waa PASTEF maanaam sàkku ci askan wi ci biir réew mi ak ci bitti réew ngir ñu jàppale leen ngir ñu mën a am euh, au niveau national il peut-être posé trop trop problème mais on a vu le ministre de l'intérieur Antoine qui communiqué ne levée de fonds international am ban nga am ci yow xam nga man Antoine Antoine Diom rappelé na li yoon wax na li yoon wax waaye fii itam bu fekkente ne levée de fonds maanaam lu mel ne ay militant wala ay sympathisant ak yooyu am na ci sañ-sañ li tax ma ne am na ci sañ-sañ itam mooy ñun dañ ko doon def. yéen dañ ko doon def bitim réew. man bokk naa ci ñu njëkk a jël initiative képp koo xam ne bokk nga APR chaque samedi chaque samedi maanaam muy territoire nationale bu Italie ba mu daj chaque samedi da nga joxe 5 euros ma di ko dajale man. Hmm? waaw bokk naa ci ñi nga xam ne campagne 2012 ah plus de 1500 euros jël nañ ko jël naa ko man indi ko ñu dugal ko ci campagne 2012 joxe ko ci parti bi kon damay jàpp ne loolee ma doon def ginnaaw valable na kon ñoom it valable na ci ñoom bu dee ay ay ay ay financement yoo xam ne day jóge feneen yu bokkut ak sénégalais yi nekk extérieur bitim réew wala sénégalais yi ni ci réew mi. bu fekkente ne dafa am loi boo xamante ne dafa interdit levée de fonds international maanaam nga xamante ne ku ku cosaanawul ci réew mi maanaam ku bokkul ci réew mi maanaam muy muy muy euh, lobby yi wala yu demee noonu loolu bu fekkee dafa am loi bu ko def Antoine Diome génne euh, di rappeler rappelé wul xëy na dafa cité pastif mais pour ñu jàpp ne rek pastif kese na parti yépp jàpp ne loi bii tënk pastif moo tënk ñëpp moo tënk ñëpp. mais man li ma jàpp mooy lu lu lu walaa bala li Pastef def parce que euh, ginnaaw dama ko doon def ñu ñu nangal ma ko wax dëgg yàlla waruma ko mën a bañal keneen. kon levée de fonds bokk na si li fi fal président Macky waaw déggoo li ma la wax ñun dañoo dajale ba fal ko dajale laa la wax déggoo li ma la wax xanaa dama ne la man bokk naa ci ñi jël initiative boobu laa la wax. man man man man maa toog réunion. Mhm. procès bal bi yaa ngi fi lépp ngi fi. maa toog ne képp koo xamante ne alliance pour la république ñor na la. nga bëgg bok bokk ci parti bi ngay sympathisant wala nga bëgg a bokk ci bureau bi nga xamantene mo nek bitim rew sak samedi boy ñew na nga indi 5 euro ma diko dajalé kan di ci fay sal sal bi bu déssé ñu te ci caisse gi ba campagne jot ñu campagne ci. man mako def procès verbal yaa fi lepp ngi fi. mais jox len ko joxu len ko kenn. wa kon yaang ma doon léegi laaj ba xam am nga carte APR kon léegi fernel na la yorna carte bi. <laughs> man kañ sax gëmoon naa ko c'est-à-dire. non ma la koy laaj pour pour pour pour rek wane la. Mhm. mënoo nekk authentique ñu ñu reconnaître la si parti bi. déggoo li ma la wax carte yi dama ne dama ne dama ne Italie. Mhm. maa fa njëkk a yóbbu carte alliance pour la république di ko jaay man. avant ñuy defar sax xam nga après la ñu defar carte diaspora def benn cachet def ci diaspora man bi ma koy yóbbu di toog réunion. naan leen lii mooy kartu APR ah euh, man man maa ko njëkk a def Daouda fay mi may dégg peut-être mi ngi Touba dafay ñëw wala yu demee noonu. Daouda Faye moo Marème Faye ñoo bokk ndey ak baay. Mm-hmm. gannaaw bi la ñëw indi carte APR defar kase ñu boo xamante ni diaspora lañ ciy bind. toog ak man wax ak man dama gannaaw carte yi binduñu ci lu mel noonu léegi dama bëgg ñu récupérer waat carte yëpp dajale ko. cacheté yëpp mu nekk carte diaspora xam carte diaspora moo gënoon a seer carte yi ne fii hmm. parce que fii dañ ko doon jaay cent franc fële ñu di ko jaay dix euros. waaw dama dama dama dama laa bëgg a wax rek histoire parti bi keroog président de la république bi ñu koy woo ministère de l' intérieur fii ñu fi jóge motuñu cinq personnes wala dix. fii melum Cissé moo fi jóge ak siñoor doomam ab lat sekk saa dàgga man mii ak man mii di wax ak yow hmm. ñoo fi jóge dem ministère de l' 2008 2008 ak maam xari maam xari mi nekkoon député laa la wax hmm, benno bokk yaakaar moom sëñ Moustapha Bassirou keroog ba ba ñuy di dem Fatick président de la république booba maire de Fatick la di ini hôpital bu fatik kérok mam mhm. mam xarit mi ñoo and kérok ci guddi bi mu ñëwé 2 h du matin la ma woné ma damay bayyi parce que man munuma munuma di di ñëw fatik. ah ab sama otom mak ñëw ba ci yoon wi di pan di wax ak mustapha mu di ma saga man na. Hmm. ma top ci di convaincre bam delu ci wat ci parti ami mbake das mi ngay deg bi nek nekk hôpital Matlaboul Fawzeyni Skype lañ doon wax man maa ko boolee ak Cissé Lo Matar Diop seede la ci ne ko demal nga bokk ci parti bi ak feneen ak feneen. Mm-hmm. mais Cissé Lo ko brisé man mën naa ne la. waaw Cissé Lo. jaar ci politique. naa non attends non man Cissé Lo. <laughs> Euh, fi ñu jaar ci politik man ak moom moo gën a maanaam euh, tax tey mën naa ne. buñ li ñuy wax naan dangaa agressif politique daanaka bokk na ci ñi ma ko def ak ni ma osé di lu li ma sentir ma di ko wax dama ne nag Cissé téléphone lañ doon déggante après bi bi ñu bi bi bi bi kii jàllee ñu woo président de la république euh, fële euh, ministère de l'intérieur ma jóge fi dem France jóge fa dem bitan wa da la xara xara rek non xam nga lo gis lu da fay am histoire day raconter histoire bi fum mu euh, kérok mi ngi dogo tak ben soxnam bu ñuy wax euh, yama fi ci ngabu kérok bima koy wax Burkina Faso la nek bobu ma ngi Italie kër Arona Dia kérok lama pass Arona Dia mané ko dañ doon def réunion man dama poser candidat ne euh may jité yàlla dogal ma gañe Italie gépp ma gañe ci ci bureau bi jiite ñu dem ba ci biir ñu ne ma yow euh, bu fekkente ne da nga bàyyi kon ni parti bi ni nga doon communiquer bëgg a parti parti bi du dox il nga delluwaat ci communication bi ma ne leen kon garaaw léegi seet leen keneen ku jiite ñu toog ba mu yàgg ñu ne dañuy invité benn kàngam ci parti bi ñu bari opposé ma Serigne la mi yoroon structure de parti yaakaar naa mi ngi tubaab mi ngi may dégg ak ñeneen ak ñeneen ak ñoom Garmiña ñëpp ñëpp ñu bari opposé ma may leen ñu ne Diène Farba la ñuy invité may leen Diène Farba kenn du ko invité Cissé Lo la ñuy invité mbooloo mi ne ci salle bi ñu ne léegi dañ koy voté ñi ànd ak man d'accord ni Cissé Lo la ñuy invité nañ ma wateel ñi d'accord ne ñeneen ñi Diène Farba la ñuy invité nañ ma wateel ñu watewaat ma gagné leen. ñu ne kon Cissé Lo la ñu invité Cissé Lo keroog bi ma koy wane ko yow la yow laa bëgg a invité Italie woo ko mu nekk Burkina Faso mu ne ma man kat damaa nekk ci opposition te mënumaa tukki te ànduma ak sama soxna boo ma mënee garanti lenn wutal ma réservation de hôtel billet maa koy daggal sama bopp man ak sama soxna yëpp parce que mu man ko wutal visa ak yu demee noonu ma ne ko amul problème. keroog maa ko garanti. Mhm. mu ànd ak yaama soxnaam ñëw. keroog bu ma koy jëli aéroport ñu bari dañ maa boycotté nit ñi ma bàyyi leen ci salle bi dem jëli ko Cissé jaar nañ foofu. Mhm, yàgg na Cissé invité naa ko Marseille Marseille man mii maa fa taxawal parti bi bi ma koy taxawal dama ko taxawal ne leen man bu ma ko taxawalee tooguma fi parti bi laa bëgg mu yaatu. Maguette Ndiaye mii nekk tey noota guy jama maire. Mhm. keroog laa ne ko yow yaay nekk coordonnateur ngeen dem ba lan opposé leen Babacar loolu yaa ma dégg mais munuma di ànd ak yow yéene la. te yéene ma. te peut-être mën na maa yéene. moo la xañ. non waxuma moo ma xañ de dama ne peut-être mën na maa yéene. lu leen opposé. non man opposé wu ko de. wax ah, dëgg yàlla déedéet déedéet xam nga li ngeen ma wax sànq da ngeen ko fàtte dafa mel ni dangeen ngeen ne ma parti bi bu jëmee ne nga jëm na le hmm. du dëgg waaw taxawal rek taxawal rek def defal nañ non non non non loolu gars yi dañuy wax rek loolu loolu c'est foo loolu loolu amul parce que parce que da nga ne ma sànq hmm. parti bi bu jëmee nii nga jëm na li waaw 2014 euh, li ma lay wax 2014 la ba léegi de hmm. mooy mooy mooy élection kii euh, locale yi la woon non élection locale dama ne leen dañuy defar liste man cinq fois laaj nañ ma ko sama casier judiciaire pour nek seul conseiller départemental li gëna simple gëna yomb nga man buñ mako ko sax ba paré ne ma bàyyil sax ma ba ñu ñu dem di déposer ji Matar job mo doon déposer ak ku ñi wax séga si bobu mi ngi AFP ñu dem ba ci bir ñu génn sama dossier El Modou Gueye journaliste la témoin la ci garok bi ma ñëwee ñu officialiste bi mané liste bi ngeen affiché ñu ne waaw may leen baax na <laughs> bu soobee yàlla list bii du jàll. ab se abdoulaat saa daaga ah. <laughs> dem seeti feneen ta du du xanaa kon man la ma def laat sa laat saa daaga def ko. ok keroog ñu dem ànd ak Ibou Ibou mm-hmm. ak sëñ euh, Bas Tiib ak ñeneen ak ñeneen ñu contre liste bi. li li mooy histoire non non non xam nga ay taal kër ak yooyu. loolu loolu ñun waaw ba tey <laughs> parce que it combat politique la rek ah. Ah. mais ay ay taal kër Cissé Lo man man. la dëgg yàlla laaloo ci dara maanaam sax. xam nga politiquement. Hmm. jour booba sax wax dëgg yàlla damaa nekk Touba far xam nga loolu ku nekk Ndakaaru nan lay taale kër. audio audio Cissé Lo yi lu ko génne yi la ko génnee. mais audio yi la ko génnee Cissé fan la waxee audio yi ak ñan la doon waxal audio yi. ñan ñoo ko vulgarisé ñan ñoo ko. <laughs> tasaare <laughs> mais dama ne ñan ñoo ko tasaare. projet projet la mbir mi. <laughs> non dama ne mm. mais journaliste yi ñoo ko tasaare. déedéet ñoo ci mujj a jot. déet déedéet déet déet waa léegi bàyyil journaliste waa non dama ne. ci réseaux sociaux yi la gën a njëkk a tase avant kii. mais dama bëggoon avant ñuy euh, xuus ci waxtaan bi. Mm-hmm. dama am benn gan boo xam ne Sadio mm-hmm. euh, la nekk. parce que moo fa teewal euh, frappe bu Sadio di Abdou Sall. Mhm. Euh, dañ koy nuyu xool ba xam ndax mu ngi ñuy déglu ba pare allo salaamaaleykum. oui maaleykum salaam. sëñ Abdou yaa ngi ñuy dégg bu baax. waaw maa ngi dégg bu baax yow. Ah, présenté wul nga wax ñu lan moo la métti. Euh, yow yaa teewal frappe bu Guy Marius Sagna au niveau de la commune de Sadio. mu mel ni am na ay jafe-jafe yoo xam ne am nga ko ak euh, ñi yor euh, commune ba ci ay documents yoo xam ne yaa ngi koy soxla ak ci yenn ñàkk leer yoo xam ne yenn doxal ñàkk na ko leer wax ñu exactement du quoi il s'agit waaw Jo maa ngi lay nuyu. di nuyu ñi nga toggal plateau bi yëpp. Euh, di rafetlu woo gi ñu woo pour ñu participer ci émission bi. donc comme ni nga ko waxee. Euh, dafa am loo xam ne ñu di ko wooyee abus de pouvoir euh, je pense que bindoon nañu leer depuis le cinq déposé ko au niveau de la sous de Taïf pour dénoncer abus de pouvoir boobu nga xam dafa am de la part du secrétaire municipal euh, abus de pouvoir bi nu mu demee mooy ñun dañu am ay documents yoo xam dafa am ñenn ci askan bi ñu ko soxla doon ko laaj depuis daaw ba léegi am na ci koo xam ne depuis mois de mars la ko soxla woon doon ko laaj muy benn délibération euh, te comme ni ko ñëpp xamee même code des collectivités locales loolu daf ko leeral dafa trajet litige boobu yàgg te képp koo xam ne habitant nga boo soxlaa papier voilà te nga jox aussi les droits de reproduction yoon may na la ñu jox la ko donc bi mu demee pour wut loolu nga xam ne moom mooy la délibération bi mu demee après dañ ko rejeté le secrétaire municipal en personne moom moo ko rejeté ba pare na ko mu dem ci bénéficier bi mu doon loo xam ne ni c'est absurde ko loolu euh, xel sax mënu ko nangu après loolu jàll ñu bàyyi nan mu sedd frappe ñu saisir frappe ñu bàyyi nan mu sedd di contrôler di xool ba xam est que loolu day continuer u pas ñu gisaat récemment le trois beneen lettre bu en particulier demandé encore a titre personnel parce que c'était bien ñu préciser ce n'est pas frappe moom mooy dem di laaj ay documents administratifs ndax amu ci yoon mais ay nit ñu dëkk bi yoon may leen ko ñoom ñooy dem di laaj documents yooyu noonu te bu kooku bi mu bindee demande le trois déposé ko à chaque fois bu demee soxla ko ñu ne ko dafa nekk sous traitement pendant un mois te normalement bu matee un mois rek war nañ la ko mën a jox ak lu mu yàgg yàgg parce que li mu doon laaj mooy ay compte administratif yu année précédente yi en plus aussi Euh, délibération euh, d'une station bu bu bu carburant boo xam ne dañ am dañ ko délibéré woon depuis mois de mars mars février léegi le secrétaire aussi di wax toujours ne dafa nekk ci traitement nangu ko joxe euh, par téléphone ñun woo nañ plus de en tant que coordinateur di FRAPP woo nañ le maire vraiment mu acharné wu suñu kaw parce que ça aussi dañu koy wax publiquement ñëpp di ko dégg on acharné au Sénégal. en même temps par distance nous avons aussi le secrétaire pour donc rappeler lui aussi dafa acharné au Sénégal, kaw ba raccroché raccroché ñu au nez loolu moo tax nag ñu ne dañu dem sa jiit ki administrative compétente euh, le le le tout préfet de l'arrondissement de Taïf moom aussi vraiment bi de demee def na def na liggéeyam récemment contacté nañu voilà euh, jokkoo ak le ak nim ci wara waxtan ak yépp euh, ñu dañuy signaler ne ben document ngi bi euh, dafa am loolu ñuy wooye vice de de forme mu doon affaire bu aussi bu xaw bu xaw a reelu parce que jo en réalité même pour am les documents administratifs ci au niveau du secrétariat municipal loolu laajul tax ngay bind une demande bien vrai que demande c'est bon mais même physiquement nga dem taxaw seulement li ñu la conditionné rek mooy nga man ne dinaa fay les droits de production loolu heure boo ko manee dañ la koy dañ la koy jox te loolu lépp ñi nga xam ne ñu roon demandé documents yooyu noonu pare woon nañ ngir wàccu ak moom mais joxuñu leen ko ba fii may waxee yow nii documents yi euh, ñi nga xam ne ñoo ko soxla mënuñu ko am voilà pire encore le euh, le le secrétaire dafa nekk en congé te ñi koy soxla aussi tout le temps pour am document yooyu noonu am nañ demande am na ko xam def na demande avant-hier pour am document yi mais jusqu'à présent amul kenn kum ko mën a jox donc loolu nag moo taxoon ñu saisir ñi nga xam ne ni ñoom ñoy autorités yi muy le sous-préfet et comme ni ma ko waxee woon pasténe wu ñoo yem foofu aussi parce que lii dafa yàgg voilà wàllum jël benn mbir rek aaci moo ko jàpp na yow yaay buum yaay bu mu dafa yàgg te surtout gis nañ ne fi mu gën a feeñee bi muy am ci dëkk bi ko récemment vous n'êtes pas sans savoir que ne frappe saisir na qui euh, ci benn plainte pour des détournement de dernier public, en même temps conflit d'intérêt voilà euh, ci côté ay marché yu fi jaar ak euh, ay ba ñu ngi suivre procédure bi eh, xam naa yàggatul dara incha allah eh, OFNAC dina def liggéeyam ñun aussi lépp dañu ñu ci war ci joxe ay preuve ak ay explication yu précise incha allahu eh, FRAPP moom dina ko def voilà en ce qui concerne aussi comme ni nga ko waxee comme lettre de dénonciation bi pour abus de pouvoir bi donc ñun am na lu sous-préfet teg suñu loxo ñun dinañ suivre loolu fii ak un mois su un mois yu rombee te jotuñu ci

Mhm. merci dañ bëggoon xam rek euh, lan mooy jafe-jafe bi loolu rek mooy seen problème ak ñi euh, yor commune bu Sadio wala am na yeneen lu leen opposé. effectivement ci gàttal opposé mhm. ak euh, le la mairie de de Sadio. d' accord. voilà. merci beaucoup Abdou Sall nga nuyu ñu waa Sadio yëpp. di nuyu également askan wi ñu fay bàyyi xel. Euh, sur la fréquence 98.4 euh, bari nañ fa ay soppé lol lan moy seen commentaire vite fait ci lolou sama ñaari chroniqueur yi ay askan wi bu soxla ay documents administratifs euh, ci li nga xam moy commune bi ak mairie bi parce que ñom ñoy fay seen l'impôt ñu leen di liggéeyal. Mhm. ba paré mënuñ ko am. mais heureusement que amna frappe FRAPP hein. comme frappe mi ngi fi rek mi ngi léral mom lolou mom yam sa commentaire parce que Abdou wax na lépp hein mhm. foog mu am yu mel nii yoo xam ay contre pouvoir quoi. parce que tamit yaakaar naa ni secrétaire municipal euh, rôle am mooy mhm. que mu gën a jóge askan wi que muy joge maire bi mhm. parce que moom autorité bi moo ko fi teg d'accord soxna Marema. Mhm. je pense que il a parfaitement raison hein. bu demee ba am ben affaire bu bu nébuleuse wala lo xamné lérul ci sen bop. je pense que askan bi kenn ku ci nek am nga droit nga dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo la nga demandé ci ñom ay explication surtout que nak bu nekkee ño xamante nek nañ ci kuréel bo xamante ni kuréel bu légal la et que am nañ droit ñu demandé ay ay explication ci loolu kon je pense que ayant droit la bo xamné wax nañ leen ko jox té buñ leen ko joxé dina tax sax genre yi du am ay manifester yu ci bari du am et que lu lu lu facile la war a nekk bu demee ba toll ci yenn benn situation ci àddina benn niveau de développement dafa war a am yoo xam ne dañ ko war a dañ ko war a def mu terre à terre ñu banaliser ko ba nga xam ne. Mhm. du indi ay jafe-jafe et que loolu mooy li wax. waaye nag am naa fu benn réserve je. Ah, allez-y mooy tamit euh, conseil bi la mooy seen tool foofu parce que tamit euh, conseil bi lu mu valider ah man. conseil municipal bi waaw loolu dafa légitime dafa légal ah. mais document yi également. Babacar Gaye conseil bi ñoom dañuy laajte. Mhm. Euh, compte administratif. Mhm. wala ñuy voter budget bi. loolu tamit yoon la. ok comme pour man tamit am ñoo xam moo tax ñu war a waxtaan Babacar. moo tax ñu war a waxtaan je pense. nañ ci am xalaat ñu dellusiwaat waaw xam nga man li ci sama xalaat mooy jour dañuy wax benn mot boo xamante ne dafay mel ne mm. euh, dañ koy wax rek mu jàll. da ngay dégg ñu naan euh, démocratie bi avancé na dañoo war a joxe bon exemple démocratie nangam nangam kon li nga xamante ne euh, askan wi dañu ko moom wala. maanaam euh, nit dafa ñëw laaj ko dañ war ko koo jox wax dëgg yàlla nañ ko ko jox parce que lii lii li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy indi ay jafe-jafe ci ci réew mi euh, bu nit génnee fii ne day manifester ñu ne lan moo tax muy muy def manifester muy manifester euh, man damay jàpp ni képp kuy manifester rek da ngaa dem ba sës waaye bu fekkente ne li nga moom da nga koo laaj ci ni nga ko war a laajee te yoon jox la ko Euh, bu ñu la ko joxee rek man jàpp naa ne lu baree baree bari. Mhm. Euh, du lii xew du xew daal kon wax dëgg yàlla euh, am na ci loo xamante ne nag damay jàpp ne. wax dëgg yàlla autorité yi nga xamante ne ñooy ñooy maanaam mooy mooy mooy ñi ne ci kaw dañ koy yëg dañ ko dul yëg man man loolu lay loolu lay gën a jàpp daal.

fi mu ne nii Idrissa dem na carte gi réer na la yaa ngi bugg a wax pour bokkat kon kooku amul information. nee ko amul information loolu moom loolu laa koy tontu quoi. waaw man man fallu gis naa la élection présidentielle yi ci ginnaaw Cheikh Abdou ngeen ànd doon say campagne bay guddi guddi. kon noonu muy mën nekkee kon da ngay nekk si réew mi. non mais waaw mooy kooku mooy li ma la wax kooku mooy li ma la wax rek kooku amul information. ah <laughs> yow yow yow nee nga yow journaliste nga. yow gis nga man nangam ak nangam nangam ak nangam. wax dëgg yàlla loolu loolu kay man loolu moom wax dëgg yàlla du débat daal vraiment. voilà mais mais la xam nga nit moom bu ko neexee mu wax ne jant baa ngi nii mais du jant bi damaa juum ndax xam nga loolu amul sens daal wax dëgg yàlla. parfois aussi publication am na nit ñi duñ comprendre daal danaan fàll moom li muy wax amul benn logique ay ne da ko bandoo ay maanaam nu comprendre yow lan nga bëgg a wax ces publications da ngay à la fin da réeral quoi. man réer ma kenn man man li ma sentir comme li ma leen wax sànq rek au début. Euh, maa ngi koy wax xëy na peut-être mot boobu nga ci jël rek mm. personnellement euh, ngeen bëgg koy jàppee nu demee noonu moom nee na tekkiwut loolu moom na wax li muy tekki xam nga moom bu ko neexee mu jëlee ko sens bu ko neex. mais da ngay yëglu fàllu parce que da mel na da ngay toujours nekk en déphasage avec euh, le pouvoir bu ñu jëmee fii nga jëm fee. da nga bëgg ñu xam la xam xam na la sax mais ñu xamaat la wala ñu. fàttali fàttali ko la déggoo li ma la wax de dama ne wax naa la sànq ne la. man musuma jog rek ne damay opposé wu nangam dedet man musuma ko def bala may opposé wu dara dama nan li ak li lañ wara def xam nga sank yene ngi wax ci frappe ne ñom li wara am dossier dossier biñ wara jot buñ ko joté xam nga manifestation du am. Mhm. man proposition yi ma joxé néew ma ñu def ko dé xam nga nit ki sañ na joxé xalaatam mhm. waye mënu ma jox sama xalaat ne la nga jëfé ko. waaye man war na maa mën a joxe sama xalaat su ma joxee sama xalaat xalaat boobu bu dee niveau départemental ah bu ñu toogee ma wax sama xalaat xalaat boobu war nañu xool ci biir mbooloo mi toog ndax xalaat boobu bu raisonnable la ndax xalaat boobu bu mën a nekk la ndax xalaat boobu bu mën a nekk la wala ma joxe benn xalaat boo xamante ne si tey maanaam yeyuma leen xam nga nit bu la joxee xalaat joxaat la joxaat la yey la bu la waxaatee yaakaar naa war nga ko mën a dégg daal. Mariama. une dernière question dama ko bëggoon laaj une dernière question mooy est-ce que instant bii nii envisagé na ber yoonu boppam parce que bu ñu gisee fàllu ci biir APR. Mhm. day mel ni rek fàllu mu pare noppi ngir ngir wan APR ginnaaw instant yi ndax pare nga euh, kii boo gisul loo xam nga ber sa yoonu bopp mesurer sa poids euh, jéem a jéem a jéem a doxal ci ci diwaan bi. waaw loolu loolu. mooy mooy maanaam maanaam daanaka man ngaa wax euh, kii rek mën nga ne ma am nga ambition ci département bi rek waaw am naa ko ci <laughs> loolu mënoon mën nga ma sànni moo bi rek moo gën a gaaw département bi ngay wax nii am naa ci <laughs> ambition laa ci am bu wér manière ngay demee gindi askan wi wala maanaam déggoo li ma la wax la ma defoon 2014 dàqu ma def ko yàq yàqu ma de ah, yow yàq nga ko mën a jàppee non non non déedéet du yàq xam nga lan loolu lan la hmm. danaa ne leen élection buñ ciy dem nañ ci demee nii suñ bëggee ndam su fekkente ne nag. mënuñ déedéet déedéet mais non déedéet déedéet mais nañ ko kii buñ demoon buñ demoon ba. du loo déedéet xam nga nit man bu nga xalaat ci politique am na ñeneen ñu am xalaat non bu ma la waxee sama xalaat. c'est pas forcément que li nga wax moom mooy am sa xalaat naam si xam nga parti bi. non dama ne xalaat laa mën a wax may néew ma ñu jëfe ko waxuma ñu jëfe ko de waaye xalaat bi bu ñu dajalew tey département bi kenn ku ci nekk génn xalaatam xalaat leen moo koy validé démocratie moo koy walide du mbooloo koy validé bu mbooloo mi nii lii lu wax ànduñu ci nañ dem buñ demee dama cay ànd 100 pour cent la ma ca war a def dama koy def waaye nag ëllëg bu ca leneen xewee nañ taxaw it mbooloo moomu ne ah ñun ko ñoo contrôle lii waaye ndekete lii mooy dëgg bu ëllëgee yow mii boo waxee sa xalaat wala keneen wax xalaatam. xalaat boobu nañ ko teg ci taabal ji bu ci mbooloo mi àndee nañ doxal xalaat boobu. maanaam méthode bi ngay defee politique dafa dangereuse dafa graw parce que <laughs> dafa am xew sax communisme ñoo ko doon def. il reste cinq minutes. ma yow xaaral nga am formation. <laughs> non non non man communisme wala. non déedéet xam nga. Euh, da nga xëy xëy ñu appel amoo fa jaar. déedéet man ci daara laa jaar jàng daara. <laughs> maanaam maanaam maanaam dafa am dafa am dafa am dafa am loo xamante ne. Euh, doomu aadama bi bu ko waxee. Dan nga koy laaj lan moo tax mu wax ko waaye bul ne mukk kii li muy wax amut solo hmm. wala mu wax ko tey dëkk ci département xam nga ñun suñu parti dañoo yàgg euh, di di victimiser nit maanaam di di di di di caricaturer nit tey parce que da ngay gis kuy cari ñuy caricaturer même département bi parce que da ngay gis benn kilifa bu fi ñëw ñëpp topp ko hmm. am ñoo xamante ni nekkuñu fa ñu ne mu dikkee ne woon ana diw ñu ne ah diw de moom tekkiwul dara amul ñetti nit. loolu seen wax la wax affaire waaw léegi wax affaire la. <laughs> waaw loolu nag loolu nag loolu nag toujours mooy rey parti bi. Mhm. parce que nit ki boo nee maanaam koo ne tekkiwul dara daa bëgg a tekki dara. léegi yow poussé nga ko ci moom mu tekki dara. jërëjëf loolu ñun mooy suñu problème. yow foog nga ne sa bopp <laughs> voilà. jeex na tàkk. Mhm. j'aime j'aime pas dernière rubrique émission bi. waaw eh, mangi mangi maa di gërëm di leen sant eh, di leen jaajëfal loo gën a bëgg loo gën a eh, bañ ci ci dëkk bi ci réew mi loo xam ne moom boo sañoon léegi-léegi mu dañ bu ma sañoon <laughs> bu ma sañoon tey tey tey tey moom wax dëgg yàlla corona bi jóge fi d'accord ak lan loo loo loo loo loo bañ li ma gën a bañ itam mooy mooy nit ñi nga xamante ne dañoo doole ñu di ñi ñi am doole tege ci seen kaw. loolu bu ma sañoon maanaam wax dëgg yàlla tey tey tey mu dañ. nooteel gi jërëjëf ñoo lay sant bu baax a baax. waaw sa dernier moom waaw euh, sama mot bi may mujj a wax. doo ma jox doo ma may benn social la koo xam ne suba mu la nee kar. Mm-hmm. nga jox mayal ma ko benn cinq mu dépense. waaw amul problème. Ah. Mm, bu la neexee. d' accord y' a pas problème. d' accord euh, léegi maa ngi nuyu ñëpp nag di nuyu ndaw ñi nga xamante ne. Euh, donc dañu bokk ci benn dañu bokk dañu bokk ci. mën nañ maa woo directement. Ah, ku ma njëkk a woo rek naa la booleeg Fallou mu dugalal benn Orange Money. incha allah loolu naa si amul problème. dama la koy jox sax. ah, ah bu ñëwee bu moom bu la woowee. directement ma yow yow nga dugalal ko cinq mille incha ah, allah. ah ah ah innovation 2021 di leen wax ne également Galoba. fii la toog. mo am ñu ma ko booleel. mooy ñaari seex yooyu nekk Touba. ba léegi gisaguma ko. ah waaw ji à la ah, communauté. ah léegi léegi nag damay nuyu damay nuyu ñëpp ñi nga xamante ne bu jëloon fii. Mm-hmm. dafa gu ci dara may loolu c'est très important de Fallou nga baal ma. Mm-hmm. Galo Ba. Mm-hmm. directeur général SOGIP SA. responsable commune euh, bu Mbacké. ci APR. jël na fii engagement man nag nee nañ ma moom génnee na ko moom. waaye kam ko jox pour mu egsi ci man moom egseegul waaye je suppose que galobal Ba la ma waxoon daal fii askan bi yëpp di dégg ci ñaari seex yooyu nga xamee ne man dama am sas ci ñoom di leen toppatoo mhm. sasoon ko galoba mu war ma cee jàppale la ma Gallo Ba waxoon askan bi waaw ñëwagul waaw loolu daal leer na bisimilah waaw waaw ba tey euh, comme loolu ngay wax rek mhm. man wax dëgg yàlla euh, li ma li ma li ma li ma gën a bëgg mooy euh, ñi néew doole ñi di leen dimbali kenn de nga euh, di leen di leen di leen man li ma gën a bëgg mooy. <laughs> kii moom <laughs> sama huissier. waaw ah, li ma gën a bëgg. gis naa sa appel raccroché la li ma gën a bëgg mooy <laughs> li ma gën a bëgg mooy. Hmm. askan wi ñu di leen dimbali. d' accord seex yooyu ngay wax itam. Hmm. Euh, wax dëgg yàlla euh, man danaa danaa ci participer. Ah, incha allah incha allah li may ñaan itam mooy. Hmm. Euh, xel day fatu comme li nga wax noonu ci galaba. man euh, na am genné nako ak ségul ah. man na am itam. Euh, am amna pression bu ko japp mu faté ko am ñaar yëpp am benen ci am dafa am lo xamanteni ah. duma duma ko duma ko bayyi ah. moy ndaw ñi nga xamanteni ak jigen ñi di samay soppe bok ci mouvement citoyen républicain gindi askan wi ma di len nuyu di len sant di len khamna xam naa lim mom duma ko man waye nak ci ñeenti ñeenti marché yi nga xamante ne moom wax dëgg yàlla dama fa muy marché Ocass <laughs> ak marché bu xayra di leen sant di leen gërëm di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi doon déglu fii ci RFM Mbacké <laughs> di 98 euh, point 4 di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla yàlla na fi mbas mi jógee. Mhm. di ñaan itam képp koo xamante ni si génn na ci àdduna. jo man moom euh, sama j'aime pas faa ma wax ko oh. parce que actualité la. Mm-hmm. Mhm. jërëjëf Babacar Samb maye na mais man du ma maye. sama j'aime pas mooy mhm. euh, dëgër bopp bi ñu nemmeeku léegi ci askan bi. xalif général des mourides sëriñ Mountakha Mbacké Bachir def naat déclaration ñaax askan bi ni mbas mi ñëw na nañu takkaat masque yi murit la ñuy woote ndigal la ñuy woote waaye tey jii boo demee occas dem ci bërëb yi fonkutuñu léegi respecté tuñu kàddu yi nañu respecté kàddu yi Touba kàddu rek la ñu am. loolu laa doon ñaawlu. jërëjëf. jërëjëf ñoo ngi koy sant bu baax baax di ko gërëm Babacar maa ngi jéglu bu baax prochainement di nga am ñaari jeune <laughs> pa <laughs> mbokk yi di leen gërëm bu baax a baax di leen sant di gërëm bu baax a baax Cheikh Tall également mi feetoon ci technique bi ak digital bi ak senevision.com la crédibilité notre credo senevision.com wóor la ñuy tëggoo senevision.com kumpa tàggoo ak yéen kii nag di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com te bu leen fàttee di bës cloche bi mooy tax mu leen di man di signaler bépp vidéo boo xam ne dugal nañ ko ci site bi